tooñ baaxul sos baaxul wax lu dul dëgg baaxul Ousmane Sonko bàyyi sos li nga wax waruloo ko wax te yow sax gëmuloo ko te xam nga ne amul man de li ma la man Aliou Sow bi jiite MPD liggéey bokk ci coalition bi daan bokk ci liggéey te boobu coalition sama xaatimu ak xaatimu président Pape Diop ñoo ko sos ànd yeneen parti yeneen kilifa ci réew mi man balañ ciy

mosuñu wax ci moom la élection ñu jàppale ci jëm ci parrainage mosuñu mosuñu jël seen ab dërëm Macky xam na ko moom xam na ko ñi muy àndal xam nañu ko baaree wuñu bokkuñ ci caay-caay yooyu ci nëbbatu yu man lu may def dama koy leeral ñëpp xam ko mu leen laññe dërëm boo ma sant politique fu mu jógee xam nañu ko fu mu dugg xam nañu ko ndax dañuy def état financier bi ko jox nguur gi parti bi Sénégal barul pour lu ñu kese bari ko fi kon nag ni day waxoon ju rafet doo taxaw ne yow rek yaa set yow rek yaa baax yow rek yaa jub ku àndul yow rek ku déggoo yow rek nga tiiñal ko taxal ko tilimal ko loolu rafetul baaxul ñi ma ànd tamit ni ma mën a weddee tuuma boobu ma ne ko mën a weddee bu nekkee am na ñoo ci xamal na nga feeñal ne diw sàngam coalition sàngam parti sàngam dañ cee tax lii la leen jox li leen ko joxe nga firndeel ko joxe mandat yu waaye yow rek wax lu neex ngir taxal ay nit yoo xam ne bu nekkee ne da jàpp lu moo lay fale ak ndax sa bopp ndaxte ku wax lu dul dëgg ba taal ci sébb bu dëgg taw ñëwee sa sébb fay nga am gàcce